ren defe naa ni daje nañu fi tey ma gërëm ñëpp ñi teew sous préfet bi madame Bari waa même directeur ARD ñëwoon na fi donc euh, ak population askan Mont-Rolland yëpp vraiment voté nañu tey budget Mont-Rolland ñu ngi koy xayma ci ñeent fukki million donc ak ñeent téeméer million ak ak juróom-ñaar donc quatre cent sept donc ñeent téeméer millions ak juróom donc loolu bu ñu ko xaymee gis nañu ni Euh, lu bari day dem ci euh, investissement mais lu bari aussi day dem ci fonctionnement donc euh, bu ñu ko xaymaa nag dañoo xam ni loolu yëpp dafay xaalis boobu yëpp dañ koy jëlee ci biir commune Morna jéegaanuñu ko fen lii lii ñëw ci état mooy fond de concours yi fonds de dotation yi bu ñëwee dinañu def autorisation spéciale dañuy waat conseil bi ñu def autorisation spéciale maanaam dañuy waat conseil bi pour voter at budget ci xaalis boobu. nan ngeen euh, loolu pour jot ko daal dañoo war a dugg ci biir nit yi yee leen mais aussi utiliser aussi les les de de l'ordre. Hmm. voilà ñaari il faut que ñu utiliser ko utiliser aussi les services de l'État parce que les impôts domaines de trésor tout le monde doit être mobilisé pour que parce que boo xoolee suñu budget rien que pour les les impôts le trésor on dépense un million cent quatre-vingt-seize mille donc ça veut que aussi ils doivent war nañu war nañu aussi góorgóorlu pour que ñun ñu mën jot maanaam loo xam ni ñun ñoo ko moom parce que ñoom ñoo ñu war a jàppale impôt et domaine ak trésor ñoo ñu war a jàppale pour que lépp loo xam ni commune Morna war na ko am ci xaalis ñu am ko ñun nag ci suñu wàll dinañu fexe ba askanu Morna pay fay maanaam minimum fiscal bi mooy six cent francs par tête loolu moom dañ ko dañ ko xeex pour que loolu ñu am ko mais li ci des léegi nag dinañu boole ñëpp daal maanaam waa aussi le sous-préfet pour le recensement ak CADL bi pour ñëpp dañuy boole acteurs yi yëpp pour que vraiment 407 millions yi bu ñu ko dépassé wul ñu am ko. Euh, wax nga fi usines yi nga xam ne ñoo fi ne samp war nañoo fay. waa usines yi bari nañu fi am na par exemple euh, entreprise Jobaas maanaam carrière la am na jo euh, Dangote Dangote occupe 446 hectares ñoom presque am nañu ñeent téeméer hectare ak lu topp am na aussi Cefos. Cefos bu dee ñi di ñëw foog ni mu ngi Chérif Lo alors que Cefos tey kar seen carrière yëpp ñu ngi biir commune Mont la voilà yooyu tamit yooyu dañ ci dem ak waa impôt domaine yooyu def nañu études yi ba xam suñu limites yi donc je pense que yooyu entreprises yooyu yëpp dañoo war a loolu nag pour ñu fay nekk bon ñun am ñu doole bi état moo ci war a jàpp état mooy kan mooy impôt et domaine mooy trésor ñooñu ñëpp dañu war a jàpp pour que ñu mën a fayeeku lu ñu loo xam ni ñun ñoo ko yelloo. Mm. yan liggéey ñoo gën a jàmp fi ne jëme ci budget bi. bon budget bi li ci ëpp vraiment li ci gën a fës maanaam mooy wàllu ndaw yi wàllu sport ak wàllu éducation parce que lu bare parce que boo xoolee budget bi lu mat cent onze million maanaam téeméeri millions ak fukk ak benn yëpp dafay dem ci wàllu éducation wàllu. Euh, jeunesse sport ak yooyu daal li ci ëpp daal foofu la foofu la jëm.